xam ne réew moo xam ne chaque jour balaa ngaa gën a bëgg mu tasaaroo yàqu ay nit de nga di ko ndamoo mais kooku tey ak lu mu mun di subir lu mu mun di dund waruma mun a taxaw si wetam di ko won ne ñoo bokk xeex bi c'est le seul reproche parce que tey bu fekkoon complice non ma loolu lay jàpp loolu lay jàpp parce que tey bu fekkoon ne Khalifa Sall dafa taxawee ne de ba mu constaté bu xasee ba constaté ne lii ma gis même bu ñu bokkee opposition bi bokku gis-gis ma gis ngeen di poser des actes contraires ah bu posture yu homme d'État dama war a jël suma fit taxaw jël suma responsable bi démarqué wu de li ngay def. woon Sénégal ils se sont rendu compte maintenant peut être dafa a yéex. au début ensemble am ay forces pour mhm. euh, vraiment parce que euh, comme je dis nous sommes dans un monde boo xam ne mun naa ne l'exactitude n'est pas de ce monde. Mhm. donc nit ku ne mun nga juum mun naa juum xalifa Sall mun na juum keneen mun na juum mais si politique la ñu ne bu ñuy wax pour suñu askan comprendre dañ leen war a jox les bonnes raisons man comme je différencier ku mel ne Khalifa Sall ak ku mel ne ki ngay wax parce que Khalifa Sall ni nga ko décrire c'est un homme d'état boo xam ne am na yu mu jomb tey jii ni nga koy reproché mu ànd ak Ousmane Sonko ndax jàpp nga ne xëy na niroowuñu euh, la manière de faire Ousmane de lan lan nga ciy déplorer. waaw mais Ousmane Sonko même moom bonul moi la chance de faire partie de ñu côtoyer suma collègue la woon mm-hmm. nit ku comme li may wax rek Ousmane Sonko jàpp naa ne sa teraanga ji ma a am impôt ma ko defal Ousmane Sonko même yéen bu ngeen defee son portrait son Sonko bi ngeen xam 2014 xam ko ba qu'est-ce qui entre temps pour que Ousmane Sonko nekk machine bi mu def boppam actuellement Ousmane Sonko n'était pas comme ça Ousmane Sonko lu ñu ko xamee woon dem assemblée di défendre ay idéem hmm. lu ñu xamee woon Ousmane Sonko bind livre am di wax sénégalais yi di partager moom non non jëlewuñ ko si li ko indi moom mooy non non non non non non boo ma dégloo rek di nga comprendre li ma mhm. bëgg a nga xam ne bi mu demee ba am son problème Ousmane Sonko ce qui li ko def aujourd'hui une bête c'est cette et ça il n'a pas eu le courage d'affronter cette situation là un bon gentleman homme d'État waroon na mun a taxaw parce que ailleurs en France wala yenn dëkk ay nit tolloon nañ fi mu toll def bêtises yi ñu def mais dañ ko assumer xam ne ñun euh, yëre homme d'État wala président de la République ëpp nañu parce que ñun ñoo def conneries yi tax lii dal ñu dal suñu kaw mais munoo ñëw tey def li ngay def parce que tey kuy yuuxu complot ñëpp xam nañ ne état ku mu bëgg a comploter mais la muy jël comme machine munoo ko rëcc mhm. mais nit nga tooñ ab sénégalais moo xam ne ci réew mi la ne même bu fekkee wax na dëgg waxul dëgg waroon nga mën a may sénégalais yi ñu xam ndax kii di la jiñ lii ndax dëgg la wax wala waxul dëgg. xëy na il a appris euh, des des des des anciens yi nga xam ne jaar nañu ci wàllum yoon ci justice muy Karim Khalifa Sall par exemple ils ont eu confiance en la justice mais malheureusement. gis nga fi mujjee non non c'est pas une conf affaire de. et c'est ce qu'ils disent c'est pas une ah, tey bu fekkoon ne moom tey wax na ko sax nee na procès boo xam ne tegoo fa sa tànk sa ñu ne la li nga liñ lay jiñ defoo ko. donc tey la mu doon wax bu fekkee lu am la bu dee. ce serait mieux défendu <laughs> voilà et qu'est-ce aujourd'hui prouverait que ne aujourd'hui li muy wax parce que tey li ngay wax yow aussi boo ne complot la da ngay prouver lu tax nga ne complot la. Mhm. mais complot la parce que lii la ñu bëgg. lii moom li mu doon wax mooy que dañ ma bëgg a kii parce que président Macky Sall candidat la bëgg a ne est-ce que candidat la. mais aussi est-ce que déroulement fay jox ko un peu dëgg. dans la mesure où fi ñu tàmbalee euh, viol. Euh, tentative nu ko tuddee sax menace de mort ñu mujj euh, disqualifié fay def ko euh, corruption de la jeunesse maanaam fi ñu jógee fi ñu daanu si aussi dafa sore trop est-ce que yow crime à délit mais est-ce que am nga habitude di dem tribunal xam nga moom ba tey sax xam nga da nga ne de crime à délit mhm. donc ba tey c'est une infraction crime infraction la délit infraction la mais mën nga jógee même d'accuser à relax mm -hmm. sa Seck waxu amu fi accusé wuñ ko. jàpp ko tëj ko prison fu mu mujjee. non lieu non lieu. c'est ça que je veux dire aujourd'hui quel que soit Alpha aujourd'hui waroon na mën a taxaw mais est-ce que jàpp nga ne kon euh, bu adopté woon une posture républicaine dès le départ. fii justice mujjee rek lay mujjee maanaam dafa jàpp ne rapport de force la woon en fait mais moi et que loolu tey moo ko may lii confiance à la justice Ousmane Sonko du moom rek moo am parce que de non c'est pas mais moi je suis du pouvoir et pourtant j'ai un dossier judiciaire en cours mhm. et ça ne m'empêche pas de dire mes convictions et d'être à la euh, disposition de la justice sénégalaise. Et tout ce que la justice décidera, je l'assumerai totalement et entièrement. Mm-hmm. te jàpp naa ne niveau bi Ousmane Sonko ne xëy na nekkuma foofu donc tey boo buggee jiite réew moo xam ne tey ay réewu jafe-jafe la réew moo xam ne ndaw ñi tey ñu ngi xaar am njiit boo xam ne ku leen jóge ci seen problème la du koo xam ne il ne même pas capable de régler ses problèmes individuels moo capable régler problème sénégalais yow sa problème bi nga am c'est avec un sénégalais fii mhm. la taxaw avec le ministre Mame Mbaye Niang mu taxaw naan am na preuve yi mais lim doon def xale maternel sax du ko def kilifa bu taxawee ne lii yor naa ko buñ la ko laajee lëfu góor mooy nga génne ko teg ko ci table bi mais dama ko fàtte suma bureau mu ngi suma kër di gololoo nit ñi ko te et puis ça ne choque personne. ban sort lañ ko war a réserver. non non c'est pas man. aw ma pour parce que man aw ma pour wax ban parce que ni nga koy waxee nii j'ai l'impression de de voir en Sonko benn monstre boo xam ne. non Sonko n'est pas un monstre comme je l'ai dit moi en tout cas. dama bëggoon Ousmane Sonko lii wone rek man. gisuma da nga bëggoon Ousmane Sonko. non waxuma bëgg ko dama ne dama bëggoon Ousmane Sonko affirmer. ok ok affirmer li nga xam ne tey moom mooy yëfu góor mu def ko dans cette affaire. parce que tey. Mame Mbaye Niang moo ko accusé kooku porte ko plainte ce n'est pas l'État du Sénégal ce n'est pas l'État du Sénégal qui a demandé à Adji Sarr d'aller porter plainte. Mm -hmm. Ousmane Sonko lu mu njëkk a wax sénégalais. c'est que Sénégal dañoo dem ba ñemewuñu def wax sa dëgg ñemewuñ ko Ousmane Sonko taxaw na fii ne mosuma fa dem xaw sa safu siit bote ne c'est vrai ou c'est pas vrai est-ce que tey ku mel noonu tey di la naan fii mosuma fa dem keroog mu suba mu jóg ne la demoon naa fa mais dès l'instant que demoon nga fa am na lu fa xew mais prouve aux Sénégalais que dem naa fa mais xëy na li ma ndaw si parce que li ko dal mun na dal ku ne mm-hmm. mun na seetaan ku ne cest nit aussi da ngay objectif rek ñun waxuñu ne ay lii parce que duñu ay juge mais ñi war a aate mënoo taxaw tey wax leen li ngi leen di wax sax sa gendarmerie est-ce que de la jeunesse eh. loolu sax ba tey jii jàpp na ne moom sans moom ay élections stable du am ci réew mi. moom moo wax ne xam nga li waral loolu yëpp mooy une faillite et une défaite de la pensée man moom laa tuddee aujourd'hui li ma jàpp ne c'est une défaite de la pensée parce que le Sénégalais n'est pas compliqué. il mhm. suffit de l'expliquer pour qu'il comprenne mais ñi war a expliquer non plus le courage de dire ce qu'ils veulent dire. man tey dama ne Ousmane Sonko ma fenn j'ai dit en toute objectivité li ma gëm. ils sont contents ou ils ne sont pas contents c'est le cadet de mes soucis li may wax yàlla moom tax ma di ko wax ak suma diggante ak askan bi mhm. di xool suma njaboot di xool sumay mbokk parce que lépp lu ma wax tey bëgg naa suba ma taxaw devant n'importe quelle personne am fierté taxaw di la xool les yeux dans les yeux moo tax may wax parce que jàpp naa ne même bu ma defoon li Ousmane Sonko def suma atitude du attitude bi mu war a taxawee dafa waroon am beneen tapi attitude boo xam ne mooy yëfu kilifa mais tey réew mi bu yeggee fii et malheureusement jàpp nañ ne yow est-ce que tey di nga fier tey si li xale yi def tey xeexukaay mm-hmm. li xale yi def est-ce que fierté la est-ce que modèle de de de d'éducation la est-ce que tey li ñuy gis Sénégal ab sénégalais fier na gis tey li nga xam ne moom la ñuy gis ci réew mi si c'est le cas on laisse les jeunes le ah, faire mais dans cette affaire est-ce que l'État a toutes ses responsabilités moo waxee loolu mooy euh, deux affaires yi nga xam ne Ousmane Sonko dafa dafa dafa da ko seq ak ay nit nit ñooñu jël nañ seen ay responsabilités muy Adji Sarr muy Mame ku ci nekk porté na plainte ba gis nañu fi mu mujj mais là quand il dit que sans man élection yu yu jaar yoon du fi am quand il euh, nañ dem pare en finir avec Macky Sall quand il dit que rejoignez-moi maanaam yooyu yëpp aussi euh, en temps normal on aurait dit atteinte à la sûreté de l' état. tey jii nii état du Sénégal dafa jël ay moo xam nga lu waral loolu même bu ñu ko defoon. askan bi dañu xees xam nga bu ñu fàttee sa xel. fatt li ngay war a réfléchir yëpp yow doo gis lu dul liñ lay woon bu Ousmane Sonko amee mérite. c'est le mérite d'avoir façonné cette jeunesse-là de telle façon que xëy na les gens ne réfléchissent même plus j'ai beaucoup de respect pour la jeunesse ah parce que je suis un jeune jàpp naa ne tey du ma toog di wax suma jeunesse loo xam ne du fierté wala du kii parce que jàpp naa ne man ab sénégalais la ca kaw ga laa jóge te xam naa ne jeunesse bu bu am bu am euh, xam lu ñu bëgg mhm. ñoom ñoo nekk Sénégal mais xam nga am na fu information di toll da ngay dominer nit ki ba nga xam ne finalement comme li may wax dañu exercer viol de conscience sur la jeunesse sénégalaise. mais, mais finalement alors vous en êtes aussi victime vous qui nous dirigez. non c'est pas ça parce que l'état jël responsabilité am loolu lay wax non non bi toll na foo xam leen ma gaaw leen ci non non non mais mais mooy li ma la parce que dañu xes ba jàpp ne tey lépp lu ñuy def Ousmane Sonko rek moo war a non non non non non non c'est pas ça Ousmane Sonko est suffisamment intelligent moo tax li muy def yëpp c'est calculé et ni mu koy defee xam na lu tax mu di ko def allum si jublu parce que xam na ne tey si loolu rek dama war a mën a amul parce que amul une vérité bu mu téye mhm. lépp lu muy def montage la yal euh, mu baal ma mais jàpp naa ne du dëgg mun nañ ko tuddee sa ay fen rien que pour avoir gain de cause sur l'État et une personne de mauvaise foi man li ma gëm ma gëm ko te dama koy tooñee suma xarit sa wax ko ko nee naa ko gëwuma ne Ousmane Sonko yàlla dina seetaan mu am dëgg ci président de la République parce que bu dee dañuy waxuñu sa ay affaire de état dañuy xool si diggante doomu aadama rek. Mhm. nit mënul nekk suba ba ngoon jot di def loo xam ne àndul ak dëgg àndul ak diine àndul ak dara ba pare. foog ne di nga ci jëlee ndam c'est pas possible. mais d'un autre côté aussi ñoom euh, ces partisans ils disent la même chose. jëmale ko ci yéen. waaw mais c'est parce que yàlla dina leen àtte ak yéen ñoom. la ñuy wax tey jii nii exemple yi joxe mooy ils n'ont pas compris parce que ñoom li ñu jàpp mooy que ne parce que Ousmane Sonko n'a pas dit la vérité à ses partisans. moi je connais beaucoup de gens yu bokk Pastef y compris Birame Souleye mhm. le numéro 2. ñoo bokk promo Bassirou Samba euh, Bassirou Diomaye ñoo bokk promo. et j'en profite pour demander la clémence de l'État lu ñu ci mën a def c'est de hauts fonctionnaires pour ñoom ak ñeneen ñoo xam ne tey administration soxla na leen ñu mun a dellu ndax yéen emprisonnement c'est abusé non non non c'est pas ça parce que biram Souleye xam na ne li mu wax waru ko wax moom li ma wax xam nga tey biram Souleye n'est pas comme ça je les connais ces no là il n'est pas comme il n'est pas comme li li mu wax c'était pas biram Souleye di nga toll foo xam ne mhm. nekkatul yow mais boo yàggee nekk ci atmosphère boo xam ne loolu ngay gis tu c'est le milieu qui détermine mhm. loolu mooy déterminisme parce que tey da nekk ci milieu boo xam ne tey dañuy joxe nañ sa exemple ne tey boo jëlee ab liir dugal ko ci ay biir golo bu yàggee geste golo lay def c'est ça mhm. mais tey foofu la Pastef tollu di nga dem jege rek non mais aujourd'hui boo deful parce que aujourd'hui même les jeunes de Pastef am na benn moment dañu tirer même sur Bassirou Diomaye parce que dañ jàpp ne Bassirou il portait pas le combat mm-hmm. mais Bassirou moi je le connais am na nuñ ko yare séeréer la am na loo xam ne du si dugg du fa yegg parce que dama gisul lu ko jaral loolu mais non mais mais moom laa la wax lu tax mu def ko parce que on la pression bi la dañ ko dugal ci loo xam ne ce n'est plus lui et biram Souleye pareil parce que Birame Souleye moi je suis témoin suma ministre Diatara mun na témoigner loolu gunge mm. naa ko assemblée il n'était pas tenu de dire en tout cas lu baax li mu xam ci man yëpp ne ma mm-hmm. denk naa la ko et pourtant il est de l'opposition mm-hmm. donc man du ma toog fii tey parce que ànduma ak leader am. ma bëgg a mais Sénégal bu mel noonu ni nii est ce war nañu egg fa yegg non aussi comme ni ma wax. bëgg a sauver parce que son Sonko à un certain moment a voulu eh, sauver sa peau son honneur moo tax tey réew mi tàkkoon sa jaraloon na ko loolu mais est-ce que moi je préfère disparaître mhm. honnêtement pour sauver cette nation sénégalaise que de me dire que suma honneur warul mën a nekk au-dessus d'un pays mes intérêts ne doivent pas être au-dessus de mes intérêts personnels mhm. xam nga état du yëfu caaxaan et puis ab askan askan boo xam ne boo xëyee xool Sénégal booy xëy sa yaram yi dafay daw man bu may xëy di déposer suma doom muy jàngi en ville mais ñiy wàcc ci ay oto njaga njaay ñiy wàcc ci ay bus ñuy wàcc ci terre bi ñépp nekk ay borom kër yuy daw dépense est-ce que vous pensez qu'il est normal qu'une personne aujourd'hui puisse avoir une entreprise boo xam ne nekkul dara lu dul na dëkk bi taxaw mais